rawatina ki nga xam ne dafa sell dafa sell léppam sell cëram yëpp ba xolam sell sell boo xam ne fu mu toll mu nga ci xasiratul qudus xam ne boo jeex yaale moom yaa ngi jeex ci xasiratul qudus yaa ngi jeex kaale suñu borom nga xam ne bu fa tey jii ñu lay laaj ci moom mu ngi mel ne boo demoon ba ci xasiratul qudus nga nekk fa te kanamu suñu borom tabaraka wa taala tey jii nga fa war a tegginoo moom nga war a tegginoo ci kanamu boo toogee ci moom nga xam ne boo toogee ci moom cër bu nekk dana wax la mu def te bu nekk bu moy gàkk ba mu def ci xol dana jàlloog moom يرى الخطايا بعين القصد واهرة كما يشاهد مع أحسن الناس كورس يحمي ضياء عن كضوء الشمس حيث نهى يحظى بتقسيم السنارات لكي يرفعوا بتعبير خوفه لكي يرفعوا بتعبير xañtu jeexitam lépp lu mas a laal nga fonk ko ngir jàmm ci ko Seydina Abdullah ibn Abbas dafa daan def fépp fu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas a romb moo xam buggam laal na ko wala buggam laal ko bu fa jaaree teggin la fay jaaree xelam day dellu si ki fi jaaroon ci déggoon tànk ndax jën mujj yoo xam ne benn wëñ bu jógee ci buggam mën naa romb dëkkub lënn fu mu laal boo ko laalee suñu borom mën na la jaali kon loo xam ne da nga fexe te dootoo texee di mukk di gënaan si Ahmadou Bamba bi laaw kaa ak boobu ñëwee te Cheikh Ibra Fall ñëw jokk ci moom ñu waxante ay kàddu kooku wax koog dogo sëñ bi waxal ko tuuti ci doxam ne ko man de adduna bi may fi ñëw moo fekk la lu asamaan si daan ci yonent bi ak suuf si mu daan dëgg rek ma xam ne li ma wut danaa ko am. ñu ne murit na muy mel ñu ne ne Cheikh Ibrahima Fall moomu ndax bi nga xamee ne nit ñi lëjël lañu sëñ bi lëjël ko bay jéem a dox digganteem ak suñu borom tabaraka wa taala mënuñu ko sax ci baatin waaye ci zahir ba mu di leen sëndax foofu ba mu rëdd rëdd ne rëdd bi ku ko jéggi da nga dem safara Cheikh Ibrahima Fall ne dafa jéggi rëdd ba mu ko waxee mu ne ko yow da ngaa ñeme safaraam da nga déggul li ma waxam am dëgg koo gëm mu ne ko ñemewu ma safara dégg naa li nga wax gëm naa ko waaye aw ma soxla ci safara aw ma soxla ci àjjana aw ma soxla ci dara dugul yow noonu la mu di mel bi xidmatin aw bi xubbin boobu moo di cofeel cofeel mooy buumu gi takk taalibe bi ci sëriñ bi na cofeel bi gën a dëgëral rek dëggu bi gën a ni cofeel bi gën a sedd li ko la aajee murit bi gën a gaaw a fajoo ni cofeel bi gën a dëgëral lay gën a gaaw a àggee ci yàlla ndax murit bi buy ñaan sax na teewlu melaw sëriñam ni mu mel ci xolam mel nañ ngi jàkkaarloo moom di ñaan nga du du yéex mukk sax duñ ko delloo aw hadiyaati yor na wax alquran dafa ne alladina yuminuuna bil xayb wa yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun bu waxee iman al imaanu bil xaybi mooy yoonu amati muslimina maanaam jullit ñëpp képp ku gëm yàlla àdduna ci martaba al imaanu bil xaybi ndax li ñuy wax yëpp muy àjjana muy safara mu jéggi siraat muy taxawal bis penc al imaanu bi mais ci ñu gën a bari ci nit ñi dañ koo dégg rek gëm ko kooku mooy max iman bi gën a suufe bi ci tegu mooy yow bi mel na dafa doon nelaw ci génn ñu wan la ci xew ci bis ba lépp ak xew ci biir bàmmeel ba nga xam ne nan nan nga ko gisee waaye gént la kooku mooy daraja yi ngëm ci def a kawe mooy loolu lépp da ngay mel da ngay jàkkaarloo moom ñi ngay jàkkaarloo jant bi boo tàllalee sa loxo di ko xool li ngay gisee sa loxo noonu lay mel bi iman bil bi ñëwee julli ñëw on mara sax naa ñun ci ko naa ci yëkkati sa alal di nga mu lew na ndax dañ ne alal mooy shaqiiqu ruuxi mook ruu ñoo bokk ndey ak baay alal dafa sax ci xol nit ki bëgg ko muy njëriñam lu teew waxtu wu bu ko yëkkatee dugal ko ci bërëb def na sacrifice yëkkati ko dugal ko ci ay caaxaan wala ko moo gën a yomb yëkkati ko dugal ko ci foo xam ne du ci lislaam diine moo gën a yomb ndax seytaane lay dimbali waaye wax woo ko bëggee yëkkati jëme ko ci lu baax seytaane ngeen mu ne la da ngay ñàkk de ak seytaanu yaidukum al faqra wa yamurukum bil fahsha wallaahu yaidukum magfiratan minhu wa fadlan wallaahu wasi'un alim ngëm gi nga am nag ba li ngay bëgg a def gën a ne loolu yi nga amee doomu aadama ñu rawante nañu lool ci loolu bi ñuy waajal jëy jëy suñu osra sallallahu taala alayhi wa sallam lal malaat mi ne waaj a leen armée bi xare bii waaj a dem xeexi jullit ñi di dugg ci seeni néeg di fab la leen ci gënal indi di ko jaay suñu borom tabaraka wa taala yàgg nañoo jaayante suñu borom nag ndax seen dara ak seen rôle ñu njëkk a jaay dina laa salaam li mu mee ëpp saw ndax képp ku ci dee chérif nga sa chérif mooy koo xam ne ak du la métti la waaye dara daanu la ci tax na boo dee sax saajo woo tàng dara topp lu ci àdduna ñooñu ñooy suhadaaw yu topp ci daraje siddiqoon yi bu ñu ñëwee. sidna Umar indee lu bari sallallahu alayhi wa sallam ne ko loo fa bàyyi mu ne ko lu toll ma indi. sidna Abubakar radiyallahu moom itam indi la ko yàlla jox sallallahu